assalaamu aleykum wa rahmatullahi <clears throat> <clears throat> sëriñ bi maa la nuyuwaat <clears throat> di la ziyaarawaat di la baal xaq di la baalu xaq di sàkku ci nga baal nu xaq bu baax a baax mu mel ni dañuy ñëwaat ak sinu ibnu muhayyab fi nga xam ne fi lañ ci yamoon keroog boo xoolee jeexaloon nañ xarful qaa xarful xaa jeexaloon nañu ko wala dugg ci xarfu daal waaye lépp rek tagg yenent bi rek la moo tax mu ne ala fazkurul muxtaara taxdaw bi xayrihi wa fi kulli xasdin faltasiru bi sayrihi daf ne xéy ñépp gessoo ku jàppoon bàyyi la nga jàpp ku doon taxaw taxaw ku doon nelaw yeewu ñëpp naka jàkk di ko xool mu ne leen rikki lillaahi wa rasuulihi fàttaliku leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tànn giñ ko tànn ci biir tànneef fii su ngeen ko defee dey daa ngeen cëru fii cëru fële mooy daa ngeen roy sunnaam fii daa ngeen cëru daal ci yiw te nee itam bépp dox ak bépp jëf booy jëf na tegewu ci sunnaam ndax moo ne man iqtada bii fa huwa minni wa man raxiba an sunnati fa laysa minni képp ku ma roy ci man nga bokk képp ku jëfe neneen nag tabaarakallaahu xamoo ma xaw ma la man rasulullahi moo tax mu ne alaa waawee alaa dama ne ñëpp na kott di dégloo ñu ne ko loo ñoo doyee mu ne faskuru fàttaliku leen almuxtaara fu ñu tànn ki ci biir tànneef yi nee na su ngeen defee lii de taxsaw da ngeen cëroo bi xayri yi ca yiwam wa waaw ca yiwam wa te mooy tagg gu rafet gi ñu koy tagg te nag faltasiru na ngeen jéem a dox moo jéem a roy bi sayri yi ci sunnaam ci doxalinam fii kulli xas ci bépp yoon lépp jëfandikoo bu ngeen di jëfandikoo na dëppoo ak sunna xam nga sunna dara jëfewu ci waaye malheureusement dañ ko jàngalu nit ñi rek waaw dañ ko jàngalu nit ñi rek nit ñi nag buñ demee ci conférence yi ñoom yaakaar nañ ne wala gàmm yi nanga wax lu gën a kawe lu gën nàngam nangam nangam te yooyu léeg-léeg di ko ci suruxal di jàngal nit ñi ndax sa xam ko ak woyof gi mu woyof ci yow mu tax miin gi nga ko miin bu mu tax nga yaakaar na ñëpp xam nañ ko la ñëpp jekku nañ ko te bis booy jaxasoog nit ñi mbaa ngay déglu nit ñi nga xam ne lu ñu réere bëri na loo te yu jege la yoo xam ne warul nekk lu jullit di réere kon yooyu nag la indi loolu yëpp mooy ñàkk leen wax yu jege yi leen wax lu sori loo xam ne mar day taal yi wa in tasaru nafa alkalaami bi gayrihi da'u limtidaahi lmustafa mada gayrihi ndegam yéen a ngee sañ a jënd wax ju am njariñ ci ju amul njariñ bàyyi leen wax ju amul njariñ jëndee ko wax ju am njariñ mooy bàyyi leen képp ku ngeen doon tagg te dem tagg rasuulullahi wa in tasaru ndegam yéen a ngi jënd nafal kalaami njariñal wax mooy wax ju am njariñ ah bi dayrihi ci wax ju amul njariñ mooy wax juy lore dama ne daaw bàyyi leen mataxa xayrihi tagg keneen ku dul rasulullahi bàyyi leen ko moo xam ci way la wala ci wesar limtidaahil Moustapha jëm ci tagg sallallahu alayhi wa sallam xam ne moom dong moo yor affaire bi fa zikru ala moo gën a kawe ci lépp bépp discours ak bépp wax te wa am jëdu tabaarakallahu moo gën a tedd bi zikri rasulillahi asmu wa aatali wa qalbi ilayhi bis sababati yassali nee na tagg gi may tagg rasulullahi ci laa amee bës ci la ma ñëpp xame ci laay defee li may defee ci barki tagg rasulullahi sama xol nag soppul kenn ku moom tax na sopp gi mu ko sopp dafa mel ni dangaa jël xal di ko jaar ci biir xol bi ndax cofeel gi moo tax mu ne asmu dinaa yëkkati ko wa aatale dinaa jéem a kawe itam bi zikri rasulullahi mooy dinaa amee bës daal bi zikri rasulullahi ci tagg gi may tagg Moustapha di wax ay jaloore mekk mbaaxam ak xeeti baax baaxam ma nekk ab géwélam taw xal bi sama xol bii yastali dana jaaru ilay bi sababati ci sopp goo xam ne sopp na ko ilay yi jëm ci yenent bi sallallahu rek ci cofeel goo xam ne moo koy lakk wala nga ne waxal bi sama xol bi daal dégg nga yastali dana lakk bi sabaabati ci xeetu cofeel goo xam ne ilayhi jëm na ci sallallahu alayhi wa sallam ndax lu tax walaysa siwaahu matlabi wa mu ammili wa mu ammali dalilul wara wa laylu bi subhi yan jëli safiuhum wa naaru bi nuuri tuxmadu borom ibnu muhayyab nee na aw ma benn yitte aw benn càkkutéef benn jubluwaay lu dul tagg rasulullahi ndax yenent boobu mooy tegtal nit ñi fu ñu war a jaar ci yoonu njub ba mu ñëwee itam li fi nekkoon ci ak njubadi ak lëndam bokkaale def naka su noonu ku mën sa morom duma ba mu fi ñëwee la fi dañ te itam ëllëg moom la yàlla dina ràmmuloo sawara woowu mi ngi koy faye ci leeram gi te mooy sariyaam bi soo ko toppee rek tabaarakallaahu ci la rammoo la nga am nga am ko ca ndax tabaarakallaahu yeneen bi mës na nettali benn xadis ne bu yowmal qiyaamee cëppaacoli gi sin du suñu borom day dikk ci man ndax am nga aaje ci man yow rasulullahi wala sunu borom sax moo naan kaa man damaa am aaje ci yow yow Moustapha yenent bi nag ah waaw njaati gi moom nan lay ame aaje ci surgaam mu nekk tey nag dina am yenent bi ne ko luy sa soxla mu ne ko sama soxla daal tey damaa bëgg nga bañ ma wàcc wàcc waayu ku dul joxe ku dul yaatal ku tàlliwul bu ma wàcc wàcc waayu ku nay damaa bëgg yow yonent bi nga ñaan ma giñ naa ko ci sama tedd nga ak sama màgg boo ma ñaan yow rasulullah yéeféer yii ñoom ñëpp pour ñu dugg aljanna naa la fajal aajo booba léegi nag kom yaay sang yaay surga bi maa njaati jëli ñaan ma loo bëgg rek ma defal na ko loo bëgg rek ma defal la ko ci sa tedd nga ak ci mbaax ak ci sa nangam nangam waaye yeneen bi xam ne la ca jaadu xam na la ca rafet xam na lu mu war a ñaan ak lu mu warul ñaan ku mu war a tinoo ku mu warul di sóori yenn wax yàlla yoo xam ne suñu boroom waxoon na ko ba tax rek wax ja day am tabaarakallaa walaysa lii aw ma mu ma ñeewal ñeal si waaxu kudur la bii mu nekk sama càkkute wa mu amali ak di sama jubluwaay yeneen boobu dalilu waraa mooy aji te mbindeef yi ñoo di leen jëmalam ci njub te jamono ba mu koy def kat wal lu ndir moom guddi ga te mooy guddi bokkaale yàlla ataawal kufru fii jawrin wa zulmin fa xaadal kulla an li diini kon mbir moom guddi bokkaale yàlla yan njëli dina wuññi dana muri ko bi subhi ci suba ak sariya ak rasulullahi moo yónni giñ ko yónni shafiihum mooy ajiram mu mbindee fi taw naaru mbir moom sawara ëllëg tuxmadu dees naka giimalee dees naka faye bi nuuri ci leeru rasulullahi ma ngoog nee dafa man sakka fii xiina yuskalu afkalu tu xammu bihi axshaauhu wa tu xalkalu nee na képp koo xam ne danga ngaa dégg ñuy wax jaroole rasulullahi mbaa ay mbaaxam ak i ngëneelam mu mel ni yëf yi dalay déranger nee na kooku danga dee ci lox foo toll sa xo <coughs> la waa nga digal waa ji naan am na ñoo xam ne bu ñu weddi xaru nee na kooku ci weddi xaru te nag du dañ xolam mu ci am lu ko naqari ak lu ko métti ngir dégg gu muy dégg jarooy rasulullah ndax lislaam moom ku dégg jaroom dégg jarooy rasulullah yi jarooy rasulullah yi ku ko dégg dégg lislaam munul ne ma ngoog fa man sakka képp ku sikki sàkka fii ci yenent bii xii na kar jamono boo xamee ni ñi ngi tuddeef ay ngëneelam kooku de af ko lu moo gën mën a lox ci loxkat yi te nag tu xammu dees na lakk axsa uhu ay baljetam bihi ci tudd googu ñu tudd rasulullahi mu koy naqari looloo koy rey feebar ko def ko cancer te watu xalxalu dees na ko baj bajiloo mooy dees na ko firfirloo dees na ko ñàkk dalloo kon nag ñiy weddi nañu def ndànk wa fiihi lana min lawaati shawqi salsalun dawaun bi adwaayil qulubi muwakkalu nee na ñun nag tag tudd googu ñuy tudd rasulullah yi day dafa mel ni ñun dañu cee am sawaraw cofeel woo xam ne day lakk suñu xol yi dañu cee am it ndox mu sedd lool neex lool mu neex a naan ñun daal suñ déggee tagg yi daal cofeel gi ni mu ñuy def dafa mel ni sawara woo jël di muy lakk seen xol yi wala dafa mel ni ndox mu sedd neex lool ba fa neexaay ba ëpp na dayaw nga ñu ko jox ñuy naan dangeen teg ñu mar lool mu ne kooku mooy faj jàngoro xol yi moom la ko yàlla dénk moo tax wa fii wala naa ñeel nañu fii ci yénant boobu salsalum ndox muy féngi-féngi mooy ndox mu neex lool fii ci tudd gi njëy tudd min lawaati shawqi bàyyi ko de nga maam ci lakk-lakki cofeel yooyu nga xam ne moom lañu am suñu digganteeg moom nee na boobu dawaa un aji saafara la lay saafara mu ne bi adwaa il qulubi ci jàngoro xol yi mooy rëy ngissal bëgg dara jàgg yi ci des ak yëpp mu wakkaluñ kuñ ko wakiil la dénk ko ko dama ne fa man sakka képp ko sikki sàkka dégg fil isra yi ci jeexantal ibra waaw kay fil ibra yi ci wéral gi mu wéral moom yenent bi wéral gi muy wéral jàngoro yi jàngoroy xol yi jàngoroy baatin yi wéral gi mu koy wéral ku ci sikki sàkka nee na xoolal ni mu daan wéralee jàngoroy zahir yi rek jàngoroy zahir yi rek xoolal yooyu bala nga àgg ci biir yi fal xissu jàngoro yi mën a teg bët mën leen laal mën leen a gis yeesal daañu seede ne kii ku ko topp tabaarakallaahu mel na nga war a mel kon kooku mooy sallallahu alayhi wa sallam nag tamassaka bil wusqa min alxaqi urwatan ndax fa arsalahul mawlaahu lil xaqi qudwatan yenent bi jàpp na ci buum gu dëgër ga ci gutt gu dëgër ba te moo di alquran ak sunna si ko sunu borom jox jàpp na fa mu gën a dëgër ba mu ci jàppee ba dëgër nag te mooy di ko jëfandikoo dëgg dëgg jëfandikoo yàlla yebal ko mu nekk ab royukaay ci mbindeef yépp képp ku ko fi bàyyi nag di seet leneen mbaa ngay déglu leneen ah tabaarakallaa loolu daal yow la tamassaka jàpp na moom yenent bi urwatan ca buum ga bil wusqaa wala bil wusqaa ca gutt ba dégg nga euh, dégg nga tamasaka jàpp na urwatan ca buum ga bil wusqaa ci bu dëgër bi lool lool lool mooy fi gën dëgër daal xam nga boo xoolee jatang foofu nga xam ne moom ngay dugal ci wokk fas wi te nga xam ne cokotong bi moo kaa tiim loolu la ñuy tuddee ab gutt mooy urwa jàpp na ca gutt ba bil wusqaa ca bu gën a dëgër lool lool lool te moo di alquran ci yàlla <coughs> tax na ko mawlaahu borom bi mu nekk mbir moom mu nekk royukaay moom sallallahu alayhi wa lil xalqi ñel mi def yi wa xiina sataa bil ifki wa zuuri satwatan daa saxalayni l insa wal jinna daawatan fan ilal xasri fi asmaihim taraddadu tataraddadu kon afam waxiina sataa waxtu woo xamee ne songeef na satwatan ak song ndegam song nañ ko ak song bil ifki ci ay duur wa zuur ak i mooy lu dul fen jamono boobu rek daa woote na daawatan ak woote woona asaka lay ni ñaari way dijji bopp yi nga ne kan kan la ñaari woy dëgër bopp yi kan kan la te moo di al insa wal jinna la leen woo mu ne woon na leen ilal xasri ñu jëm ci pang ma mooy jëm ci dajaloo mooy yowmal qiyaama dégg nga te taraddadu woote boobu nga xam ne dana jaabante dana baagante fii asmaa'ihim seen nopp yi te ci mën dara daawum fa labba man xadatu alaakatan wala wa qad aana min sukri lajjaaji ifaakatu nee na woona moom rasulullahi nit ñëpp pour ñu dugg ci lislaam waaye fa labba wuyu na woote boobu man koo xam ne xaddatuhu màng na ko lu ko màng lu ko gisal mu ne alaakatun ak cofeel goo xam ne am na digganteem ak boroom ak digganteem ak rasulullaay moo koy ñoddi bala ko yonent bi wooye mu ñëw ca boroom ibnu muhayyib ne waqat xaana dëgg dëgg daal jot na sëkk nag ifaaqatun ak xiqi ak ximmaliku ak ànd sa sasa ko ci laan mu ne min sukril la jaaji ci màndik muur gi ñu nuur ci weddi rasulullahi nee na weddi gii ñu ko weddi doy na sëkk nag ñu daytale ci weddi gi wa man lam yujib tawan fa li sayfi taqatun dimaaul hawaadi in asatun muraqatun nee na ku ko nanguutu wuyu ci lii mooy la nga déggoon Seexul Haaj Mayo bi kaylihi kaylihi jalabal wara wa liman ajaabu naylu xayru maraami loolu rek la képp koo xam ne nanguwoo kaa wuyu ci sa coobare mu jëflanteeg yow ci jaasi wa man lam yujib képp ku nanguwul wuyu yonent bi ci woote boobu muy woote tawan ci coobare ak sago xamal ne fali say fi fa dana ko wuyoo li say fi ñeel jaasim jooju taaqatun ci kattan ak doole goo xam ne moom la lay notee ba nga ne wiiw ndax dimaaul hawaadi dereti loosi fas yi muraaqatun lu ñuy tuur la in asatuhu ndegam mooy nañu ko ñu ko tuuree nag bi at ci jaasi joo xam ne laa yataqassadu du damm moom jaasi jooju du jeng du damm du def dara ñu ne tawxiid ci tawxiid te moo di wéetal yàlla sunu borom subhanahu wa taala xaribun wa in sattat alayhi almafawisu ahabathu min sirri nufuusi garaisu maa jeexal bayit boobu nee na xaribun aji jegele moom rasulullahi sunu cofeel ak moom wa in satat donte sori na almafawisu àllu màndiñ yi alayhi ci moom donte ñun fu ñu nekk ak fa mu nekk sori na lool waaye nag axabatu sopp nu Moustapha xaraisu xol yi min sirri nu fu fi bàyyi koo ci secret bakkan yi ci dagg-dagg boobu boobule xam naa <laughs> aji woote joo xam ne woote na kon nag fa tuubaa texe li ma ñeel képp koo xam ne adaxaa yoor yooru na woo moom faayisun muy aji texe bi ci yenent boobu ndax diyaanatuhu jamu diinun diine moom yenent bi xaajisun baaraas la ani naari waaye sirrun ani naari diineem daal soo koy jëfandikoo benn tata boo xam ne benn pakk la boo xam ne benn làqokaay la boo xam ne benn défendarokaay la boo xam ne dalay défendre sa digganteeg a fa man dal la képp ku sànku anha ci diine jooju kooku ne mu xalladu ku ñu béel la fil adaabi ci dugg ëllëg yowmal mu gis moo ko mooma kon tabaarakallaahu ñu bàyyi ko foofu ñoo ngi jéggalu asalaamaaleykum wa rahmatullah